wa tubaarakul xarakaat wa tudacaful xasanaat summa salaatu bi akmaliha maca salaami bi atamihi ala ashrafi xalqihi wa akmali rusuli sayidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi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 ba yàlla tàllalee suufam sile tànt asamaan sile mu tiim ñu santaane ay ibaadaat muy ay jaamu yàlla yuñ koy war a jaamoo jaamu yàlla yooya yëpp mu santaane woon man manag ak doomu aadama ak ñeme yàllaam yóbboo na ko mu mas koo defal kudul yàlla ba moy koor jaamu yàlla goo waxati gudul koor mbon nit ki ak man mana ak bari pexeem ak man a bokkaaleem ak na mag yàlla ci ak pexe xadeem yóbboon ko mu jël mbubb moom a jéem koo solal ku dul yàlla waaye mbubbab koor moom yàlla rek lañ ko mos a solal moom rek la jot moom kenn dong tamit moo ko mën a santaane ami client waaye koo fi waxati lu bari bari pexe mu mu santaane koor parce que lu jege ñaari milliards ci ay nit bay lekk bay naan fi jant bi fajar xaree ba jant so du benn fan du ñaar du ñett du ñeent lu dul ñaar fukk juróom-ñeent mbaa muy fanweer bi ayaama maaduda kooka yàlla dong moo ko man ku dul yàlla bu ko santaane woon gaa yi tëju bu doonte dañ laa ragal lekk di naan te te ne koor gee tàng waaye nag yàlla man koo santaane nga tëggu ci sa saal bile sa frigidaire bi xéewal ya nekk ca sedd guy laaw nga mën a lekk mën a taxaw ci digg penc mi ne koor gee tàng tey te kenn du ko weddi ànd ak loolu lépp nga woor kon koor yàlla miñ ko defal moom kenn dong moo ko mas moo ko mën a santaane ngi defalee ko ko ku dul moom bu ko santaane woon doo am client jaamu yàlla yi goo waxati gudul xoor man man nit ki ak mbonam mos na ko koo yóbboo mu jéem koo defal kudul yàlla tànnal jaamu yàlla gii ñuy tuddee tabaaraka laaw tudd baatu seede bi nga xam ne mooy tax nga dugg ci diine lislaam li muy màgg màgg nit ki ak mbonam mos na koo yóbboo mu jéem koo defal kudul yàlla moo tax yow jullit bi di ma déglu bu sa xol bi feesee tepp ci bëgg yàlla ak wéetal ko ba tax nga taxaw seede ne benn buur amul bu dul yàlla yàlla dong lañ war a jaamu jaamu ga jariñ ñàkk a jaamu ga di lor am na ab xéeféer bu dend ak yow gannaaw yow jullit bi ba nga ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi moom mu taxaw wax ne ashhadu an anna al usa ilahun wala mu ne ashhadu anna usa ilahun wa anna laata ilahun wa anna hubal ilahun te mënoo ca dara lu dul dafa lay naqari waaye tuus nga ca mënut kon yow sa xol bi bu feesee yow jullit bi seede kenn ak yàlla ka ak wetaayam ba am na ab xéeféer boo xam ne bokkaale fees na xolam ba ba mu seede tabaarakallaahu ak yàlla kudul yàlla wala nga taxaw ne maa ngi seede ne benn buur amul budul yàlla maa ko seede xam ko xolam bi fees tepp ci wét weddi yàlla ak bokkaale ko mu taxaw ne la jant bi yàlla la ba tax mu koy mu koy sujjootal ka jaamoo ka la xaju kon loola loo ca man kon dama bëgg a wax ne mbubbam sahaadatu mbubb la moom yàlla dong la jot waaye xam na ñu ko doon jéem a nattal jant bi xam na ñu ko jéem a nattal malaaka yi xam na ñu ko jéem a nattal ndox mi xam na ñu ko jéem a nattal ay nag am na ñu ko jéem a nattal euh, maanaam aw weer am na ñu ko jéem a natal ay xërëm am na ñu ko jéem a natal ay ay ay doj ak ay montagne ndax am na ñoo xam ne lu am puissance rek ñu jaamu ko. am na sax ñu ko jéem na nattal seen moromam nit ba kooka taxaw ne wa ana rabbukumul a'la ak ma alimtu min ilaahi xayri kon kon booba moom leer na ñaareel bi tamit boo jëlee julli mi nga xam ne mooy ñaareeli ponk ci lislaam li muy foor foor mbubb la moo xam ne yàlla rek la jot moom dong lañ ko war a nattal waaye texe dégg nit keeg mborom gi yóbboo na ko mu jël mbubb mooma di mbubbam julli di ko jéem a defal kudul yàlla ndax am na ñuy jullil jant bi am ñuy jullil weer wi am ñuy jullil xërëm yi am ñuy jullil ay montaan ak i doj am ñuy jullil ay nag ba yàlla ne laa tasjudoo li shamsi wala lil qamari wasjudoo lillaahi lazi xalaqahunna in kuntumoo iyaahu taabuduuna kon mbubbam julli yàlla dong la jot waaye am na ñu ko jéem a nattal ku yàlla naka noonu tamit boo jëlee asaka mbubb moo xam ne yàlla rek la jot moom rek lañ ko war a nattal te mooy génn kenn ki sa ñaar fukki xeeti alal yi la yàlla jox nga jox ko kenn ci ñaar fukki juróom-ñaari xeet yi alquran tudd ci innama sadaqaatu lil fuqaraa yi kon mbubu moom ba mu jotee yàlla moom kenn kese am nañu yëkkati asaka di ko jox géej gi muy muy gàtt yooyu ñuy tuural xam nañu yëkkati asaka di ko jox jant bi di ko rendil jant am nañu koy rendil weer xam nañu koy rendil ay xiram mbaa ñu ko koy xeewal ci diggante euh, bahiraak saayiba toog wasiila toog ya ca xaju ca wàllu woowa kon asaka mbubula la moo xam ne yàlla la jot waaye xam nañu ko jéem a euh, jox ku dul yàlla naka noonu tamit boo jëlee li ñuy tuddee xaj màkka te mooy xarmal baagante diggante safa ak marwa nga wër ko baagante diggante maanaam safa ak marwa wër kaaba nga jàllal bi ko taxaw Arafa gee ci aju eh, mbubb la moo xam ne yàlla rek la jot waaye xam nañu ko jéem a solal ku yàlla ba gis nga yéeféer yi daa nañ def lu ëpp ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk ca Kaaba ga di ko wër jël tamit safa ak marwa fii ñu teg fa xiram gu ñu tuddee isaaf gi na naa ilatu ñu koy baagante ba ba yàlla farataalee xaj ne nañ dox safa ak marwa jullit ñi sax dañoo siboon dox ga ngir la fa xiram ya nekk ba yàlla maanaam fa man xajjal bayta aw ya'tamara fala junaaha alayhi an yatawafa bihima kon bu moom yàlla la jot waaye xam nañu ko jéem a natal ku dul yàlla yi ci des demeet waaye koor lan la nga ne bàyyi naa lekk bàyyi naan fi fajar xaree ba jant sox koo koy defal nga ne xiram ba àdduna sosoo ba léegi mos taam te du xam mukk wala bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee koo koy defal nga ne jant ba àdduna sosoo ba léegi mos taam te du xam mukk naka noon tamit bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee koo koy defal sama moromam nit wala koo koy defal nga ne malaaka koo koy defal nga nangam ba àdduna sosoo ba léegi mos taam te du xam mukk kon yàlla rekk moo ko mën a santaane am client yu day ni yim am xat mu jot muy gën di dolleeku te ña koy def sawar ca lool kooku yàlla rekk ko mën a santaane am tabaarakallaahu lim bu day ni bi mu am ku ko santaane woon ku dul yàlla kenn du la ca topp bu la nit ña ragalee tamit danañ nëbbu di lekk mbaa ñiy nëbbu di naan mbaa ñiy nëbbu sëy boo waxee ñu la koor gee tàng waaye yàlla moom sant la ko nga def ko kon nga xam ne koor yàlla rek lañ ko defal. ñaareel bi koor jaamu yàlla la goo xam ne amul ngistal jaamu yàlla goo waxati gudul koor nit ki mën na koo def fekk defut ko waaye koor moom kenn mooy jaamu yàlla gi nga xam ne ku ko def moom nga def nit ki mën naa julli fekk julliwut nit ki mën naa joxe asaka fekk joxe wut ko nit ki mën naa xaji màkk fekk xajut màkka xatta nit ki mën naa tudd baatu seede bi fekk tuddul baatu seede bi day ngistal rek moo tax yooyu yëpp yàlla ngi say dànkaafu nit ña bari na koy xajit fekk ah, yàlla taxut moo tax yàlla ne xaj leen tam a tax maanaam wa atimul xajja wal umrata lillaahi ay laali riyaa yi matal leen xaj ak umra te yàlla dong ma tax bu fi kenn xagit ta fekk taxuma léegi nag nit dana xaji ngir yokk aw tur wala xaji ngir yokk daraja wala ngir xaji ngir nangam ak nangam bëgg nettali mel ni kuy touriste rek foo ko fekk nag ma ngay caméra boppam di dugal ci WhatsApp yi fu mu toll nan maa ngi ca nangam maa di ñaanal di tiitaru di woote fenn fu nekk di yónnee ñaareel baak aawo ba yooyu yëpp ngistan rek mu ci ëpp doole waaye kuy xaj ngir yàlla la fa nee jërul nga koy nettali bàyyee ko yàlla rek. bëri na tamit kuy julli fekk day ngistan rek soo ko jiitalee mu guddal rafetal su jullee moom kenn ñaawal ko. moo tax yàlla di wax ne wa isa aqaamoo ila salaati qaamoo kusaala lu tax mu a yuraa una naasa kon loola am na ca naka noonu tin bëri na koo xamee na nii ma ngay joxe alalam ci asaka teqale ko kone mu jox ñu koy sant asaka jaa bëri am naa ci ñeent junne kii ne am naa ca fanweeri junne di ko sant di ko gërëm fekk ngistal rekk a tax moo tax yàlla ne bu leen joxe alal yi te fekk ngistal tax yaa ayyuha alladina amanu laa tubtulu sadaqatikum man ni wal adha kalladi yunfiqu maalahu riaa naas waaye mu ne tamit bëri na kuy tudd yàlla fekk ngis tala tax yuraa'uuna naasa fekk wala yadkuruuna laaha illaa qalilan waaye alquran ba alquran jeex doo fekk fenn yàlla ne xoor leen tama tax ndax yég na ne ku xoor rek yàlla tax nit ki mën naa juli fekk yàlla taxut joxe asaka yàlla taxut xaj màkk yàlla taxut jokk bokk yàlla taxut jàng alquran yàlla taxut dem gàmm wala ci yeneen yàlla taxut waaye ku xoor xoor nga ndax bu la ca ngistal naree fekk nga dugg ca restaurant ya mbaa nga jënd sa lekk dugg sa néeg tëju lekk ba suur taxaw ne koor gee tàng ku ca man dara kon ku xoor xoor nga yeneen ci des nag def ko taxul nga def ko kon loolu njariñ la ci njëriñal koor yi waaye koor bokk na ca njariñ ya dafay héegee nit ki jëlee ko ci matière yóbbu ko ci leer koor ci lay nit ki yéegee bàyyee ko ci matière matière am lekk naan sëy dem di dundi ay leer di ko consommer ci koor ci lay nit ki yéegee bàyyee ko ci bashariyatu at turabiya at tiiniya ilal malaikiya génnee ko ci mbindeefam suuf ak ban dem nag yore jikkooy malaaka te ku woor rek yore nga jikkooy malaaka man ngaa dem sa waxatuma ba passé jikkooy malaaka yore jikkooy yàlla ki xoor fa yore jikkooy yàlla yàlla bokkul ci ay jikkoom lekk ak naan ak jotee yow nag boo baxee lekk bayi naan bayi jotee dañ la koo mooñaale yaa ngay jikkoo jikkoo yàlla yàlla nag ne ku jikkoo sama jikko maf maa lay fay kullu amali ibni aadama la ila sawmu fa innahu lii wa ana ajisi bi kon loolu bokk na ci li li tax yàlla wax ne koor maa koy fay ndax ki ko def fa jikkoo sama jikkoo waaye tamit ki tax may fay koor koor bu ma ko fayit borom perte lu tax borom di perte malaaka yi ñu yàlla booleeg ñiy bind jëf yi ñaari jëf lañ mën a bind jëf yi wax ñi dégg ko bind wala jëf yi nga xam ne dafa manifesté wu ci rukkoo ak sujjóot a jokki bokk ak du mel noona waaye nag koor moom dafa nekk jëf ju manifesté wul waxoo ko ba ke ba malaaka mën koo dégg di ko bind ci kiraaman na su ko defee tamit ñoom jëfoo lu tax ñu gis ko moom jaamu yàlla ak baatin la ci biir xol la ne yàlla mi ngi ko defal dong mooy ki ko yëg moo tax kon bu ko yàlla fayut nga perte moo tax yàlla ne yeneen jëfi doomu aadama yëpp doomu aadamaa ko moom malaaka yee koy bind di ko ma mbool leen ñi fay waaye koor man yàlla maa koy fay ndax su ma ko fayut ñii duñ ko xam ba koy mën a bind. Ah, waaye tamit koor jëfi doomu aadama yëpp doomu aadama ko moom ba mooy ba mooy koor déggee nañ ci tamit ne koor jaamu yàlla yi des wax naa la ko mos nañ koo jaamoo yàlla kon boo jullee mos nañoo jullil ku dul yàlla nga joxe asaka mos nañ ko defal ku dul yàlla kon nag yooyu yëpp ñi defal ku yàlla te man yàlla ma moom ko yaa moom yaa ko moom li muy tekki bu yowmal xiyaamee boo taxawee sama kanam ki say jëf damay seet bala ma bala ma la réglé ñi nga xameel xaq ñii saaga ñii jëw ñii xaste ñi nga trian leen ma jël la nga moom la nga moom nga sañ a faye ma jël la nga moom muy sa julliya sa joxe asakaya sa haj màkka ya sa jokk bokk ya yooya yëpp moom nga moom ma fayee ko bu yooya jeexee te jeexul bañ sa ci yoolu koor man may wax ne koor maa ko moom wa ana aji si bi maa lay fayal sama magasin yi yiw yi waaye yoolab koor duñ ko jël di ko fayee kenn moo tax maam xalifa ne hadis la bu naqaree firi ne tafsiruhu bi anna ajra saimi yabqa fala yuqasu fi lmasalimi lii ma ngi ca murhat mur maanaam joosu tulaai bil murhafatil qutaai ilabni mayaba aqi tanatuci noonu la ko góor yàlla gu tedd ga firee maam abbas kon xadis la bu naqaree dégg de xadis bi dégg ga yaatu na koor yàllaa ko mën a fay ndax moo ko xam malaaka yi mënuñ koo fay ndax xamuñ ko duhut loo wax bañ dégg ko mën koo bind duhut loo jëf bañ gis ko mën koo bind te kii bind ñaar la mën a bind lim dégg ak lam gis waaye lii nag moom yëg-yëg la boo xamee ne nii yàlla rek moo ko mën a xam waaye koor ku ko def ngaa ngaa ngaa ngaa héegee bàyyi ko ci basariyatu at turabiya jëm ci malaikiya wala nga jëm ci ar rabbaaniya looloo waral tamit yàlla ne comme yow yaa niru yaa may niru samay melo di meloo samay melo di jikkoo samay jikko wallahi tay ma wan la sama jikko maa lay fay ah, naka noonu yeneen yi si des yëpp mos nañ koo jaamoo ko dul yàlla kon yooya nga moom yooya ngay fayee waaye nag yii mën lañ ko mos a jaamoo buñ fayee ba hegg ca maay ubbi sama magasin yiw yi fayal la mais koor du ma ko fayee kenn su ko defee kon ki ci sa kaw bànneex yi ak bàyyi bànneex yi ak lekk yi bàyyi soxna yi mu mu daganoon la te dara terewut la ko lu dul mu ludul ba gi dox sa digganteeg sa borom moo tax kon koor dëgg-dëgg tedd na tedd gu màgg moo tax yàlla jël idaafatu tashrif moomale ko boppa ne fa innawoo lii man mii maa ko moom kon nag koorangoog foor na màgg na nañ ko bàyyi xel tabaarakallaahu di ko yàlla bu baax boo demee ca benn téere bu ñuy tuddee itxaaf itxaafu saadatil muttaqiin sarxa bu mag la ah, boo xamee na ni dafay sarxa téere imaamu Ghazali ba ixyaa wa diini wax na ca ay asraar ah, yu kawe kawe ci koor Euh, yal yàlla yokku leer ak suñu waajur wu tedd wu sëriñ Maodo Touré moo ñu doon baaxee téere yooya moom boo demee ci téere bi dafay wax ne yonantoo wax ne genn wàll gëm yàlla mooy muñ muñ mooy genn wàll gëm yàlla muñ mooma nag boo ko doon kaaj koor mooy ñeenteelu xaaj ba kon koor mooy rubuul imaan gëm yàlla boo ko defoon ñeenti kaaj benn kaaj ba mooy mooy maanaam mooy koor moo tax yàlla di wax toujours ne na ngeen dimbali ko wastaino bi sabri wasalaati bi sabri jooja koor la ca namu ndax muñ ku mënta ku mënta muñ doo mën a xoor yàlla dafa boole ñaari jaamu yàlla jaamu yàlla ak saahir ak gubaatin jaamu yàlla ak saahir yëpp julee ci ëpp doole moo feeñ waaye jaamu yàlla ak baatin yëpp koor ci ëpp doole moo tax mu ne dimbandikoo leen seen mbir ci ñaari yi wastaino bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa ala al kon loolu bokk na ci ah, maanaam asraaru saw bi waaye koorangoog ak fooraay ga koorangoog tabaarakallaahu ak màgg ga te boo xooree muñ nga ku muñ nag yàlla nee na xeres naa yowmal qiyaam ma dajeeg moom di ko peeseel naan ko lii nga xam ci poids déedéet dama koy sotti yiw ba mu doyal te li ko waraloon yonantu yàlla ne ma man jaabil xasanati fa lu am am saaliha mu ne yow yàlla dolli ñu fukk rek dolli ñu yàlla ne masalu lasina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin nambata sab'a sanaabila juróom-ñaar téeméer mu ne dolliñu yàlla ne man sa la si yuqridu laa qarda xasana fa yudaa'ifu adaafan kasira mu ne yow yàlla dolli ñu yàlla ne innamaa yuwaffa saabiruun ajruhum bi xayri xisaabin a ah, yonent bi kontaan muñ xam ne fii lan ndollal mën a xem sotti la yiw ba nga ne doyal naa mu ne laggal nga dem aljana yàlla nañu ko yàlla wax kon koorangoog mu nekk jaamu yàlla goo xam ne saytaane li muy mën a mën a yàq amul ca cër ndax saytaane bunt bam doon jaar mën a yàqal nit ki mooy bunta biir lekk ak naan ak sëy yow bi nga wooree bunt yooyu yëpp tëju na moo tax yonent bi ne dañuy jéng saytaane xam nga ne koo xamee ne ni sab noon la nga jàkkaarloog moom bunt yam doon jaar pour mën laa gañe waaye waaye bu fekkee mu tëju dafa mel dañ koo jéng kuñ jéng nag di sam noonu neex naa duma moo tax kay ku defati ya ngay defati gannaaw bi nga waree waxal leneen waaye bu ko jiñati saytaane saytaane moom ba koor gi jotee nga war yow jullit bi rek la ko yàlla jéng ba amatul benn force fu muy mën a jaaree ci man laa yàqal yàlla jël koor timit boo ko jëlee ci borom xam-xam yi sa ak gémmañ ga la yàlla la ñuy niraleeg deretu suhadaaw yi koo xamee ne dafa doon xare yonent bi nee na dañu jam ko deret jay sotteeku ak yéreem ya suulaale leen ko meloo melow deret la waaye bu yowmal qiyaamee dafay yore xet misk waaye tamit mu ne ko xoor ba digg bëccëg sa gémmañ gi xeeñ lay wane xet ak gémmañ la waaye bu ëllëgee mooy gën a neex xet misk fa yàlla moo tax man wala si nafsi bi yadihi la xaluufu fami saayimi atyabu indallahi min riixil misk kon nga xam ne kon dëgg-dëgg saqet ak gémmañ gi buñ koy peeseek euh, deretu misk ma kon nga xam ne xam na doole nga xam ne kon xam na doole de xam na doole de nañ ci bàyyi xel kon xam na tabaarakallaahu ci bunt yi bunt boo xam ne ci aljana ña doon woor dong ñoo cay dugg ku wóorutoon doo dugg ca boobale buntu soo bëggee dugg ca buntu ba rek del woor buntu muy muy baabu rayaan ña doon woor ñoo cay dugg kon nag tax na ñuy wan a woor pour nga dugg fa te xam nga banque boo dem xam na porte yoo xam ne ñu am carte fa la ñuy jaar de. autoroute bile ñi xam carte du ñu raade bu àllaaxira tamit ya doon xoor du ñu raade da ngi ñëw jàll ki yoor na ñaari mbégte mbégte gi mooy bu demee ba dog la ko yàlla santoon def na ko beneen bi moy bu demee ba dajeeg boromam li saayimi farxataani farxatun inda iftaarihi wa farxatun inda liqaa'i rabbihi yonentu bi ne li kulli cheyin baabun wa baabul ibadati assawmu mu ne loo gis xam na buntu buntab buntab jaamu yàlla sa dëgg-dëgg mooy koor mu ne nelawi ah, ku xoor ak jaamu yàlla naw mu saayimi ibadatun abi hurayra ne bu booree koor dugg see yàlla dafay xubbi lu buntu aljanna yi tëj lu buntu safara yi jéng seytaane yàlla xoote ne yow miy sàkku xiw jege sil sa promotion taxaw na yow miy sàkku xay gàttañlul sa sa promotion tëj na alquran ne kulloo wasrabu hanian bi ma aslaftum fil ayaamil xaaliya bu yowmal qiyaama bu ñu yàlla teral dafa dafay woon lekk leen naan leen yéen a bàyyi woon lekk ca fan ya passé woon ak naan ngir ak man tey ngeen bànneexu ci lile kon nag dëgg-dëgg euh, koor na doole euh, bu ëllëgee ko koy def bul ko yàlla fayee dana ko wax ne ko fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ayunin jasaan bi ma kaanu yaamaluuna kon yëpp dafay dugg ci ngëneeli koor tabaarakallaahu tamit ak màggaay ga ak promotion yu rëy ñu ci yàlla defal nga xam ne benn farata boo ca def ñi fulal la ko benn sunna boo ko def ñi fay la ko payoor ak farata su ko defee euh, say nelaw lépp di jaamu yàlla sa yëngatu lépp nekk di aw xiiw benn pertement tamit tabaarakallaahu amul ci koor moom daal léppam aw xiiw la kon nag nañ ci taxaw koor moomu nag di koor ak farata gii ma waxoon la boo ko seetee ci alquran juróom-benn aaya moo ci wàcc yoo xam ne yàlla wax na ko ci koor te mooy koor ak farata gi muy baatab koor ak boppam na fukki aaya ak ñett moo ci xam ci baat ba waaye aaya yi nga xam ne wax na ci koor koor ak fa moom juróom-ñaari moo ci xam ci koor farata gi nga xam ne tey mooy suñu darsu bi boo jëlee hadis yi yonent bi wax yëpp juróom-benn fukki hadis la ak juróom-ñeent boo jëlee asaar yi ci ulama yi wax. yépp juróom-ñaari asar la gis nañ ne koor moo gaaw ci yar bakkan bakkan bi ko yàlla bindee da ko laaj ne ko yow yaay kan ak man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man hee yonentu bi ne yàlla ne dugal leen ko ci xuuru xiif mu dugg ca lu mat ñetti fan yàlla génneelu ko laaj ko ne ko yaay kan ak man may kan mu ne ko anta rabbun jalil wa ana abdun xaqir yow borom bu tedd bu màgg bi man mi may sa jàmb bu xeeb bu doxadi bi kon bakkan li ko mën a régler rek mooy xiif moo tax jamono ji bu koor gi xasee jot dootoo déggati ñi doon lakkale yëpp ne ne mekk waaye ñoo xam ne buñ kayee lakkalu ci dibi yi xendoo lakkale waaye ku xëyul lakkalu moom dootoo lakkalati kenn ñëpp dañuy nekk rek ñe koor nag ñetti façon la roxul bayaan mu ne dafa am sawmul umum koor gu ñëpp bokk ak sawmul xusuus ak sawmu xusuusil xusuus sawmul umum mooy koor gi ñëpp bokk mooy koor goo xam ne bay lekk bay naan dahi jotee rek ko xaw sawmul xusuus nag mooy fekk sa bak sa bët yile ak sa làmmeñ yile ak sa loxo yile ak sa tànk yile ak sa nopp yi ak sa bët yi ak sa mbooleem cër yi ci lépp lu biji bàkkaar sawmul xusuus nag mooy sawmu xusuusil xusuus mooy sa xol bi yow nga wooral lu dul yàlla mënu cee bi mënoo koo xalaat kon koor loolu la tax boo bëggee xam koor gu wér da ngay fexe ba kooral sa cër yépp ci jamono yonantu bi sallallahu alayhi wa dafa toog am ku ñëw ne ko ñaari jigéen a nga fële dañoo woor xiif ak mar mi ngi leen di bëgg a rey leen ñi ñëw kenn ku ne ci ñoom ñaar mu jox ko ab këll ne ko waccul kenn ku ne ci ñoom ñaar waccu kenn ka lam waccu fees na këll ba kenn ka lam wattu digg na këll ba mu ne ay yéen de seen koor yi leen amul benn njariñ da ngeen a woor ba pare nekk seen moromi góor yi rek di leen jëw di leen xas di yàq seen der moo tax tey lii ngeen waccu mën a génne ci seen gémmañ yi le yéen de yàlla xamul soxla ci seen koor yi ndax ku mënta bàyyi waxi fen ak waxi mboosóor yàlla xamul ah, ki sa soxla ki sa koor googa kon loola jar naa bàyyi xel te léegi suñu nit ñu bari suñu wooree loolaa koy yàq weer la woow bu mosaan na ñëw yonuntu fay wax ne ataakum ramadan shahrun mubarakun faradallahu asa wa jalla alaykum siyaamahu tuftaxu fihi abwaabu sama wa tuxlaqu fihi abwaabul jahim wa tuxallu fihi maradatu shayatin lillahi fihi laylatun xayrun min alfi shahrin man xurima xayruha faqad xurima hadis la bopp imaamu Nasaayi moo ko solo yonent bi nee na weer wu màgg ñëwal na leen wuñ teral yàlla farataal na ci bëccëg ya ngeen xoor ko waaye tamit weer la woo xam ne bëgg nañ ngeen naafila guddi ya dañuy hubbi bunti lu asamaan tëj lu bunti safara gàqlu seytaane jéngu ko su ko defee tamit guddi goo xam ne moo gën junnee weer mi ngi ci weer mi ngi ci guddi gi kon weeru gu weeru koor weer la woo xam ne weeru promotion ci biiri promotion la weeru koor rek promotion la ci boppam xeetu yonentu yàlla Muhammad dong ñoo ko xam yeneen xeet yi ko jiitoon kenn xamutoon weeru koor ñooñu xamoon nañu weer xamoon nañ xoor waaye xamuñu woon weer xamoon nañu xoor waaye xamuñu woon weer Adama xoor la xamoon weer wu ne ñetti fan la daan xoor muy ayaamul biidi fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom ci weer wu ne nga ko yonentu yàlla Ibrahima amoon na Ibrahima yonentu yàlla Moussa amoon na koor mooy ñeen fukki fan ya fanweeri fan ci wori ak fukki fan ci tabaski koo defee kon loolu moo doon kooram waaye ñun rekk la yàlla jagleel ñi xam weer xam koor xam nañ weer wa muy shahru ramadan allazi unzila fihi alquran xam nañ koor ga muy kutiba alaykum siyaamu kon loolu ñun rek ñu ñoo ko xam waaye ñee nag kama kutiba alazina min qablikum xoor la ñu xamoon mais xamuñu woon weer weer woowu nag ñi xam muy koor gi <coughs> nañ koy xoore xooru gi yàlla jublu ci koor te wooy dafa bëgg xam na ci nit ñi nit ñoo xam ne wallahi su weeru koor amutoon te ñuy ay jullit lañ nga ne leen ni dana xiif ba xiif ray ko mbaa mu mar ba mar ray ko mu ne du dëgg yàlla nag ne tey ma mosal leen koor ndax bu liggéey bu leen nit tawatatee xiif kër ga dara bàyyiwut fa ngeen ne mosoon naa ko lu metti la dimbale ko dañ ma coupé ndox nga ne mosoon naa mar lu métti la moo tax kon koor professeur la ci defar jikko yi koor professeur la tamit ci liggéey maanaam société bi moo taxoon ku mel ni Omar ibnul Xataab dafa nekkoon koo xam ne benn bis dafa toog ba ci yàgg rekk mu xiif lekkut lu yàgg yàgg yàgg bay bëgg a dee ci xiif ñu laaj ko mu ne axsha an asbaa fa unsiyal jaaya damay ragale regg regg ga fàtteloo ma ko xiif waaye dama bëgg a mos xiif ndax ma mën a ma ñi xamut luñ lekk seen xiif ba daloon na benn sahabi yu sedd dafa jot xamoon na yëre yum sàngoo mu summi ko commencé karkar yi ca sedd ba di lox ñu laaj ko ne ko lii nag mu ne ñi xamul yére yuñ sàngoo yëpp maa leen waroon a dimbale te uma doole ju leen dimbalee kon dama leen dimbalee bokk ak ñoom seen coono ba moo tax ma mujj di lox nii loolu mooy yëg-yëg pire. moo tax yonent bi ne duhut jullit ki lekk ba regg dëkkandooram bi dëkk moom xiif te fekk moom mu xam ko looloo tax yàlla di lay fa dafa koor loolu la ca moo tax koor ñëpp ko daan def daawuda daana woor bu xooree fan dog benn fan yusufa daana woor bu xooree fan dog benn fan ñu laaj ko ne ko lu tax ngay bëril koor te yàlla la jox ndam bi suuf yëpp mu ngi sa loxo mu ne damaa bëgg a mos xiif ma man ko dimbalee ñii xiif tamaa leen waroon dimbale taxuma lu ma leen dimbalee ñoom ñëpp Omar ibnu Xataab daana koor ba ci kanam dégg biiram bay xurxuri ngir xiif mu ne ko xarxir aw laa tuqarxir lan tazuuqa laama xatta yasbaa atfaalul muslimina mu ne ko boo xeboo yëngatu boo xeboo ñàkk a yëngatu dootoo lekkati yàpp ba ta doomi jullit ñëpp a lekk ba suur moo tax ndeysaanam mu sadd waaye in jaa fi shiddatin qawmun sharaktuhum fil juuci aw tanjali anhum gawaashiha juucul xalifati wa dunya bi qabdatihi fi zuhdi mansilatun subhaana muuliha faman yubaari aba xafsin wa siiratihi wa siiratahu aw man yuxaawilu lil faaruqi tashbiha yowma stahat zawjahu yowma stahat zawjahu alxalwa fa qaala laha min ayna lii thamanul xalwa fa ashriha maa saada an quutinal fal man quutinaa fal muslimuuna bihi awlaa fa qawmi laytal maala radiha kasaaka axlaaquhu kaanat wa maa uhidat baadu nubuwati axlaaqun tuhaakiiha lii la shaacir ba mujj way ci Omar ibnu Xataab di ko tagg mu ne xiif naa ci tata xiif bokkaale koog ñu xiif ña mu ne xiif a xila xalifati bii di di Omar te naag lépp moo ko xilif day tekkale ak dëddu mu ne kan moo mën a méngaleeg xomar ci ay jëfam yu baax ak ay jaar-jaaram ku ko mën a niroo xamu fi xoolal ba soxnaam say defaral nàkk ak naar ga mu ne ko fu may jëlee nàkk ak naar ak ñëpp tan lii bu ma ko lekk ñëpp ko war a lekk ndax maa leen jiite kon nag loola mooy rolu njiit fa war a bokk ak population ba nattu ba jafe-jafe ya naqar ya wara a bokk ak ñoom tamit bànneex ya waaye warta daataarloo bànneex ba bàyyee leen coono ya te loolu moo bari ci njiit yu gën a bëri ci suñ jamono yi kon nag koorangoog xam naa bu subaa ci waxtu wi boo ma toppee danaa la sofal ci koor li nga xam ne nii sosal naa la ko ci waxoon naa la tey ci darsubi bi njariñal koor ne yow mi woor daal nga jikkoo jikkooy malaaka dem nga sax ba si kanam nga xeeb ko mujj jiko jikkoo yàlla yow mi koor jaamu nga jaamu yàlla goo xam ne yàlla rek lañ ko mos a jaamoo yàlla goo waxati ku dul koor mos nañ koo jéem a defal ku dul yàlla mos nañ koo defal mos nañ koo defal ku dul yàlla. waaye bi nga xooree jaamu nga yàlla jaamu yàlla goo xam ne mucc na ci ngistal am naa féq mënu ko kuy ngistal mënu ko boo xooree yàlla sant na la ko ngir bëgg nga mos xiif ngos mar boo lëggee bu nit ki xiifatee mbaa mu mar nga man koo dimbali ne mosoon naa ko wallaay boo kooree moom tamit tabaarakallaahu jaamu nga jaamu yàlla goo xam ne mbooleem ñi yàlla mos a bind ci nit ñi aadama ba ci sayduna muhammad ñëpp jaamoo nañ ko yàlla ñëpp ko bokk ci jaamu yàlla ci kutiba aleykum siyaamu ndax koor dafa métti bàyyi lekk bàyyi naan yàlla nañu farataal naa ko ci yéen ñu ne ko ya métti na di ñun rek mu ne déedéet du yéen rek kamaa kutiba alladina min qablikum moo tax kon tasbih bi liil lil fardiyati mais laa lil hayati ñu nag ñoom ni rooxu ñu doon kooree xamoon nañ koor waaye xamuñ weer ñun la yàlla jagleel ñi xam koor xam weer boo ma toppee suba ma sof ak yow li ma sos ak yow ci wàllu woowa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.